ci programme bi mu jagleel defaraat lépp lu jëm ci bërëb yi nga xam ne ni ay école lañu dañu fay jàngee waaye itam defaraat li nga xam ne moo jëm ci bërëbu fajukaay yi li nag tax ba maire bu Mbàkke bii di Abdou Mbàkke Ndaw nag ci ajjuma ji demoon daal di inauguré li nga xam ne moom moo di école Serigne Massamba Mbàkke bi nga xam ne moom moo nekkee ci Mbàkke Bawal bi nga xam ne dañu koy doon defaraat koppar yi nga xam ne ni jot nañu ko caa dugal nag toll na ci ñeent fukk ak benn million ci suñuy koppar ngir l'école boobu la di gën a mën a méngoo ak bërëbu jàngukaay yeesal nañ ko ci ñaari anam bi ci njëkk mooy dañu koo jëlee ci ñeenti classe yu opérationnel def ko fukki classe ak ñett yoon dafa respecter norme standard yi ministère de l' enseignement digle ñu def ci 32 million ci phase bu njëkk bi yeesalaat mur de clôture bi mu coûté waa ñu 9 millions boo xool muy 41 millions loolu nag moo ñu fi dajale tey ñu jëndoon nag fukki million ak ñaar ci fourniture scolaire war koo jébbal directeur yi nga xamante ñooy jàngale fii ci école sëñ Massamba ak yenn école yi. ginnaaw ndaje ma nag ki nga xam ne moo ab Abdou Mbacke Ndaw def na ab jënoo ak taskatu xibaar yi di fësal ne programme boobu le du ko yemal foofu ndax am na ay école yu bari yoo xamante ne nii fas yéene nañ cee bokk ndax am na école yu bari yoo xam ne nii seenum defaraat ña nga ci aw yoon. waa ni ñu defaree école sëñ sàmba defaraat nañ ko école sëñ Omar Diop defan ko tamit école Mame Cheikh Anta ñu ngi koy defar xam naa incha allah yàggatul léegi mu pare noonu nag la ñuy koy defar école Mame Mor Diarra ndax ki ko war a defar sax gagné ne ko ki gagné marché bi pour liggéey ko pare na donc xam naa bu jotee avant de démarrage rek mën a tàmbali. te it noonu lañu fas yéene at mii di ñu jublu ñu defar école Mame Cheikh Ibrahima Fall te it yaatal ko ci yenn école yëpp moo tax nag euh, ma bëgg école yëpp it ñi fay jàngale xam na seen xel dal te xam ni ñu defaree bii defar ko yëpp dañ dañ ko defaree yenn école yëpp. ci tëjkal kàddoom moom maire bu Mbàkke ma ngay fësal ne téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ci élèves yi nga xam ne ni ñoom ñooy jàngee ci école Mbàkke yi daanaka ñu nga jógee ci dëkk bu sell bi ci dem ak dikk nag day nekk lu leen di gaaral bis bu yàlla sàkk muy ñaan nag ki nga xam ne nii moom moo di naataangoom bi di Abdou Lahad Ka mu gën a dugal loxoom ci lu gën a jëm ci wàllum dem ak dikk bi jëm ci école yooyu lee euh, transport euh, élèves yi na nga ni daaw dem naa Canada am partenaire ma seetoon ci wàllu transport scolaire muy société bu ci spécialisé am nañ nag ñoom yéene pour ñu am fukki bus de transport yoo xam dana mën a buñ ñu départ te ñu mën a yóbbu 2000 élèves 10 yi wante loolu dafa laaj tamit alal ju ci war a def donte alal ji ñu cay def it boo ko doon xayma mënut jënd benn bus bu bees te bus yooyu bus yu bees la presque waxtu naa ci nag ak meeru Touba daaw mel na mi ngi ciy xalaat dëgg yàlla. mairie Mbacké dana dina waat mairie bi ci projet euh, de vote de budget bi pour que ñu xool nan lañ ko intégrer ci suñu budget